alhamdulilah rabil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salim ñu sant suñu borom bu baax euh, wax jërëjëf sëriñ Touba euh, di ziare bu baax kilifa kilifa gi muy xalif général euh, de Mourides muy sunu baay sëriñ Mountakha Mbacké di ziar kullu Mouride kullu jullit di ziar xalifa yi jiit fi ñëpp. di sant yàlla bi nga xamee ne sëriñ Touba wëcc na fi loo xam ne saasu ne mu màndargal taxawaayam ci diine ji màndargaal taxawaayam ci ci àddina bi yëpp rawatina nag ci euh, mouridisme moo tax ñuy sant yàlla ñëw fii tey ci néegam bi nga xam ne néegu yàlla la tudd muy néegu kullu euh, muslim euh, ñu jagle ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu ñëw tey toogal fi Serigne Touba ñu di ko inauguré kon dañuy delluwaat ci sunu borom wax alhamdulilah rabbil alamin rafetlu ko nag ndax àddina bi na fi tey gis liggéeyam ndax sa liggéey bala moo feeñ ñaare nga dem kon mbaay moom gannaawam ak jaar-jaaram saa su ne rek mi ngi tooyalaat sunuy xol ci li koy ak fekk mu ko balaa moo dem donc yàlla nañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahim di ci eggalee ak ay alhamdulilah rabil aalamiina saa su ne saa su ne saa su